merci beaucoup mais vraiment image yi ñu gis nii daw na yaram. Mm-hmm. Ah, daw na yaram parce que bu ñu gisee vraiment jeunesse bi euh, ki ma ki ñu mujj gis noonu foog naa ne bu amee fukki at ak juróom wala juróom-benn ci lay yem. Mm-hmm. vraiment métti na. Mm-hmm. Euh, li may njëkk wax mooy suñu autorité yi. à commencer par le procureur ak dispositif judiciaire bi yëpp il faut ñu dawal yërmande parce que. yàlla rek mooy buur te ñu nga am doole boobu am doole décision am pouvoir wu téye nit ki xañ ko li nga xam ne mooy liberté mooy benn benn droit essentiel fondamental loolu dafa nekk lu lu rëy lu diis mhm. te euh, bu ñu xoolee euh, vraiment ni famille yi euh, jëlee seen seen doom yi nga sentir vraiment déchirure bi amoon xotti xotti bi amoon ci seen yaram métit yi ñu doon dund kon vraiment may ñaan vraiment dirigeant yi ñu bàyyi xel ci loolu te ki njëkk war a bàyyi xel ci loolu mooy njiit bi mooy président de la république kon lii am nii peut-être mu ngi wane ne président peut-être mu ngi am taxawaay boo xam ne léegi pour dalal dalal xel yi dalal xol yi mais wax nag ne élection yi di jëm yi ñu jëm jublu ni nekk na élection yoo xam ne enjeu yooyu yëpp dina dellu siwaat il faut que population yi xam ne dañu soxla ni ko doyen waxee njiit boo xam ne day boole nit ñi rassemblement unité nekk loo xam ne dafa am solo ci réew mi tey euh, itam njiit moo xam ne dafa nite dafa am yërmande euh, ci fan yi rek maa ngi doon gis benn message ci suñu réseau yi euh, benn femme handicapée di wax ne c'est la première fois muy dégg ak suñu candidat euh, kuy maîtriser autant la loi d'orientation sociale bi nga xam ne mooy wax ci mbirum handicapé yi mu ne kii de ma dégg nii xaw ma ko bu baax de waaye dafa nuroo ku am yërmande loolu nag man gis naa ko ci moom itam euh, te programme bi ñu tëral nga xam ne ñu ngi ko tuddee nit ak naataange man bi ma ko gisee balaa mu may faram-fàccee programme bi ma ne ko lii méngoo nag ñun suñu vision parce que balaa ngay wax développement dangay wax nit. nit bi ba nit ki ci boppam. nga jox nga war mal ko nga jox ko cër tey prison ku fa war a nekk dafa war a nekk koo xam ne de manière sûre et certaine. dafa jéng mm-hmm. dafa def euh, problème. Mm-hmm. bu dul loolu dañuy boole ñoo xam ne euh, am nañu éducation ak ñoo xam ne peut-être mun nañ leen dugal ci ay tooxi doon yi kon il faut ñu bàyyi xel ci yooyu yëpp itam. Mhm. donc je pense que vraiment li xew nii man dama koy rafetlu di féliciter président de la république itam di ko wax mu continuer ci action yi parce que li ko desee bareetul léegi. Mhm. li mu mun a def rek mooy wane ne il a il est de bonne foi mbokk. réconcilier euh, voilà bu ñuy wax nag affaire euh, amnistie yu mel noonu génnee ni bon amnistie dañuy da ngay koo xam ne def na dara mais dama gis ne tey libéré leen libéré nañ leen bon peut-être du président de la République probablement mais dama jàpp ne bu ñu leen libéré ba pare war nañu xool ba ndàmpaay lañ leen di jox parce que bari na ci ñoom ñoo xam ne wax dëgg defuñu lu war ñu tëj leen